leen nuyu si turu maire ak turu chef de village man nag sama wax du si bëri maire li ma yóbbatoo rek daa leen ko wax yéen waa Colobane ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp si turu maire ak si turu chef de village euh, soo gisee chef euh, maire ñëw bu chef de village ñëw euh, dañoo am yeneen mission yu ñuy dox li ñu ne nag wax na wax nañ problème yi yëpp nee na fi wax moom dans les jours yi dana leen nuyu sous préfet di nuyu ensemble population bi di nuyu parrain bi mu def ñun ñëpp gis nañ ko ah na loo xam ne nag soo gisee nen nen bien fait koy ñëpp gis nañ ko. Euh, initiative bi projet bi Abdoulaye Wade indi woon c'était mise à part na mais des na des na ndax y a pas de suivi y a pas de suivi mais projet bu baax la ndax bu njëkk euh, soo demee lycée da ngay gis ni nga xam ne ñu ngi newoon si jardin d'enfants yi duñ bokk ak yéen ngeen di mel mais léegi niveau boobu jeex na niveau na léegi ñëpp a yem au lycée ñëpp a yem à bépp ñëpp a bu xale yi maa di félicité en plus maa ngi félicité Ndeye Ndack ndax ñaari xale yi quatre ans rek soo dooree te sonn nga cinquantement nga une quatre-vingtaine euh, ñu yor nga yor leen yaa ak cette équipe te peut-être problème ah astafurlah ñu assuré ko problème assuré. félicité leen la bu baax te maire nee na dana la accompagner ci lu mën ak ci loo ko wax mais nag euh, am na yoo xam ne ni doon na soo ko waxul kenn du la ko defal nit dañ jege nit wax ay bëgg bu ko su la defalee baax a su la defal bu ci kër yaa xam ne defalu lu may yow wax nga ko say problème li ci des nag mooy ñun ñëpp ci lañ dëkk vingt cinq ans ci gannaaw da nga dem ba am 10 ans doo mën a jàng international te gis naa ko yu ndaw yi non pas même pas 5 ans di jàngee international donc ndey daal ñu ngi lay gërëm ak séegi surtout maire ak surtout chef de village. c'est le cas de tout petit première génération donc les défis sont énormes on a besoin de construire d'autres salles pour séparer les trois sections. Parce qu'aujourd'hui, les trois sessions sont regroupées dans une seule salle. Donc, par rapport aux partenaires, ils nous aident véritablement à développer, à construire d'autres salles de classe pour prendre en charge les trois sessions de manière séparée. Je vais insister aussi sur une concept. La prise en charge des enfants de 0 à 3 ans. Les prestations de ce Beaucoup de parents pense que l'école française est en train de concurrencer l'islam ou bien de lutter contre la religion. Vous avez compris, vous vu aujourd'hui les enfants, ce qu'ils ont montré. Ici, dans la case, on apprend la religion. Donc c'est vous dire que on est en train d'appliquer l'article de la loi d'orientation qui dit qu'il faut entrer d'abord dans les valeurs culturelles avant de s'ouvrir. Donc c'est ce que la CAN. Autre aussi extrêmement importante qu'il faudra prendre en charge dans les perspectives, c'est la prise en charge des enfants de 0 à 2 ans, 3 ans. que c'est la fenêtre d'opportunité. Les 1000 premiers jours sont d'une importance capitale. Ça a été démontré par des scientifiques c'est quoi C'est les 9 mois dans le ventre de la maman, plus les deux premières années. Avant, on disait que tout se jour avant 6 ans. Mais aujourd'hui, on dit tout se joue dans les 1000 jours. Donc, il est extrêmement important que les parents, que les, que, que les mamans, que les papas prennent en charge correctement les enfants par rapport aux huit premiers jours en les nourrissant, mais aussi en respectant leurs droits. C'est sur ces mots-là que je vais en remerciant tout le monde. Merci, que la fête soit belle. yëpp ñi nga xam ne fu waay jógee fu waay ñëw ñoo ngi leen di ñi ci des dañuy ay remerciements dañ dañ koy tàmbalee ci équipe bi nga xam ne moo laa àndal pour ñu def lii parce que mbir mi taaru na lool waaye bu ñu ne man kese maa ko def dañoo bëgg lu ma neex waaye ab équipe moo ko def mooy équipe bii ñu ànd ma bëgg ngeen ànd tàcc bu baax l'équipe du président El Hadj Amath Diop bu ñoo ngi ñoo ngi nuyu bu baax ñooñu nag dama siy jiital wax dëgg yàlla Mor Jabel Kandji ma bëgg ngeen tàcc bu baax a baax a baax Mor Jabel Kandji parce que nag ñun dañoo doon équipe mais xel doonu ne yow yaay am xel mi yëpp ni ñu àndee mooy bu kenn amee bennam xel da nga wax ñu ànd ca jàpp ca pour mu sott xel ñii moor gëdal kàñ ñi tàccu leen ko bu baax moom am idée woo ne ma dañoo ñun bi ñuy toll doon ay xale dañoo tolloowuloo nag ñii jamono dañ daan gis ay benn benn ñoo daan am ay cadeau léeg-léeg benn cadeau fay xale ñoo koy bokkandoo di ko xëccoo abal ma laal abal ma abal ma te jamono jii ñu toll heure boo ubbee télévision yaa ngi gis ay arbre de Noël ñuy jox xale yi ay cadeau te gone yii di doon suñuy jarbaat ñii doon suñuy sët ñii doon suñuy doom am na ci seeni parents yoo xam ne am nañ yéene yi waaye am nañ leneen lu leen doy lu tax ñuy war di joxe ay cadeau bu fekkente ne mën nañoo jëm ci suñu suñu jàppale leen ci ba cadeau yooyu ñu am damaa xalaatoon ñu organiser arbre de Noël bu wér ma ne ko ba ma ci ko bëggee ak foo ko bëggee jour ba nga ko bëggee ñu doxalee ko moom ci la jëlee moo organisé lépp moo coordonné ku ñëw fii moo la woo ku fi dikk moom la moom nga waxat man damaa toog rek lu may tey ma ñëw ànd ak moom dikk kon moo ci taxawaayam ci gox bi gis nañu ko ci ñu yëgal li ñu yëgul donc geenu dara gudd na waaye loolu talaal moom yëg ko ñoo koy sant ci lu muy taxaw ci gox bi kon ñoo koy ñaanal moom it njëbit yi mu am ci Colobane yal na ko yàlla mottali di nuyu bu baax représentant wu maire bi muy El Hadj Saliou Ndiaye nga xam ne kooku sama seexu màkk euh, dafa bëgg a def de biir bi jaay mënul toog bu une heure passée dootul mën a tee xaar añ moo tax mu daw waaye mu ñu nag moom la woon boobu ba léegi mu bàyyi lépp ñëw teewal maire ma jot démb maire mu xamal ne tey dafa am tour de famille bu muy def mu xaw a sori fii su ma mënoon a boole dina ko ñu mën a boole ñëw ànd ak ñun ndax xale yi tamit moom it jaral na ko loolu kon ñoom it ñoo ngi leen di nuyu di nuyu waa Colobane yëpp di nuyu le représentant du commandant moom it ci taxawaayam ci suñu wet ci jàppale yi ñoo ngi koy sant di ko gërëm di nuyu tamit l' inspecteur euh, Ndiaye Diop ou Diop Ndiaye moi je dis Ndiaye Diop Ismaïla non euh, dama koy nuyu bu baax di ko sant di ko jox yëppalu nuyoo ak sant ci madame Thérèse Faye Diouf moom itam ndaxte bu ma ko jotee téléphone na ko madame la dañu war a organiser arbre de Noël à Colobane ci case des tout ba mu ne ma loolu day soo ma ko teeloon a wax su ma amul woon engagement man naa ñëw personnellement diriger loolu waaye ki ma représenté Fatick dina lépp dina ñëw ci jour boobu te noonu la ko defee mi ngi nii dafa dafa ñëw uniquement pour lii moo ko fi indi moom aussi mu boole ci ak pasteur bu ma sëkk ndax amoon nañu yeneen yitte yu ñu waroon a dox waaye dafa bàyyi lépp ñëw. pour ànd si ak ñun ci li nga xam ne ñoo ngi koy def kon ñoo ngi koy sant di ko ñaanal moom it ndomba tànk yi mu am ak liggéey bi ko président de la république démb ñoo ngi ko ciy ñaanal yàlla na ko def toll yàlla ci am une réussite. di la yóbbante it que ne gis nga case des tout bi ni mu mel le représentant sous-préfet wax na ko léegi directrice bi wax na ko bëri wax naa ci ak moom bëri na ay doléance ndax benn case bii la ñu am. petite section ci la nekk moyenne section ci la nekk grande section ci la nekk kon ku wax loolu wax na ne am nañu yeneen i besoin en salle de classe supplémentaire kon loolu nañu ko jottalil madame la directrice mu yëg loolu xale yi fu mu nekk dana lekk dana naan te participation yi nga xam ne moom la waa APE waa parents d'élèves yëpp di def matéwu pour nga subvenir ci seen i yi loolu it appui buñ ci mën a am na leen ci jàppale na ko yóbbanteel madame la directrice moom ko koy ñaan moom ko koy matériel équipement yi nga xam ne xale yi dañ koy foyee boo demee ci case des tout-petits dañuy soxla ay toboggan dañuy soxla ay ay ay ay jeux wu xale jeu d'esprit daf fee manque terriblement soxna yi nekk fii dañoo jàmbaare lool di boole seen xalaat ak seen xel pour mottali liggéey boobu kon nag ñu yóbbante euh, defal yóbbante boobu ci madame la directrice ngir loolu tamit ñu mën na ko jàppale ginaar jàppale bu ñu mës a jàppale woon. may nuyu bu baax it directeur d'école yi nga xam ne it ñoo ngi fi ci corps enseignant bi di nuyu les professeurs et enseignants yi fi nekk waaye di nuyu it di ko beral it directrice de la case des tout petits bi di soxna Ndeye Guèye ngeen ñu sant ko bu baax ngeen tàcc ma ko bu baax a baax a baax a baax ndax lii bu ñu ko defee ginnaaw yàlla moom la parce que moom mooy wër di rechercher ay partenaire am di wax li ma xam ci cadre des tout petits yëpp ci moom la parce que moom may wax manqué nañ lii am nañ lii soxla. dama ne ko woon 14 heures nañu daje fii ndax dama am programme bu am doole bu ma la yóbbu ca Colobane déglu leen samay wax de maa ko woo démb ci guddi na ko Papa Ndiaye mu ne man ma def ko haut-parleur daa xaw a neexul ma ne ko Papa Ndiaye mu ne man naam ma ne ko suba mu ne waaw ma ne ko dañ leen Colobane mu ne da Colobane Dakar ma ne ko wax ma la Dakar Colobane waxaale te bu ma joxoon benn lay pàcc la boo paree ma wax leen ni mu dem. dégg nga li may wax dégg nga dégg nga mi ngi xuloo tey maa ngi expliqué ma woo ko démb ci guddi fa laa tolloo ci woon fu ma toll ci explication bi ah. ah na nga wax te bu ci boole ay saaga de. Saalum ah. bu ci boole ay saaga. waay saagaw ma laaj. bu ma saaga laa la waay mais laajal Mor Kane da nga ne saagaw ma la. waxal te bu ma saaga seetuma ak yow saaga. déglu rek waaw kay. programme bi bi ñu engagé ma ne ko suba. maanaam 14 heures nañu daje Colobane Sall mu ne ma Colobane Dakar ma wax ak moom wax ak moom ba sama crédit dàq Mor Kañ ñu envoyé ma crédit ma wax ak moom ba crédit bi dàq dégguma Amath Diop envoyé ma crédit bu junni ma wax ak moom ba mu dàq. suba ba tey li nga wax ngay waxaat rek demeewul noonu a woo téléphone bay ci guddi ne ma ñoom Kañ ñi nii ak ñoo Amath Diop dañuy collé dara fii. waaye lay la laa. ma toog. laay lay dem de. waaw du noppi ma yeggal. waaye eh lii neexul. ah yéen lii neexul. waaye am na yàlla te bul tey sama mbagg bi. ah man man man dama la xool ne nga toll. mu ne la ñoom ñoom kay ñu dañuy bële dara. ay laay lay dem la. naan ko Soxna Ndiaye sax yónnee na ma gàtt moom Seydou. dinaa ca dem ndax damay ànd ak. laay lay dem la. léegi ma ne ko ba léegi la ñuy tax a mu ne ma nanu teel a ñëw bu mu teel a ñu fay ñëw. ay ay ay baas baas bi. fomp siis yi. ay ma ne ko buñ ko fa defee war na. ay mu toog ba ndege bi il est quatre heures cinq moins cinq. ay ci huit heures ba tey maa ngi. ay ci diggante kañ bi ni mu seq teraanga ji mu seq ak moom. am na jëm teraanga ji mu seq. ay ay loolu war na. ay seen dama ay xam nga. dara jàmm nga toog ba heure bi loo leen fay defar. ay waa léegi yéen doon na woo leen yéen seen dama bu dépassé wul xoolee dara. waaw xanaa mbégte am contentement bu baax di ñëw fii tey ci case des tout-petits am occasion dugal ci suñu loxo ñëwoon pour euh, organiser arbre de Noël fii ci case des tout-petits de Colobane département de Gossas mu doon acte boo xam ne dañoo bëgg bégal xale yi d'abord parce que ndaw dafa tollook foo ndaw dafa tollook toppandoo te booy toppandoo it nga toppandoo lu baax booy foy ñu jox la nga mën a foyee ci lu baax am parents d'élèves yoo xam ne xëy na euh, bëgg nañ waaye seen loxo matewut ñu doon une équipe nag àndandoo gis loolu ñu ne nañu fexe ba bëggal xale yi ci occasion bii nga xam ne mooy fête de Noël yi ñu am nga xam ne foo dem ci gox bi aujourd'hui ñu ngi service yi direction yi yëpp ñu ngi organiser des arbres de Noël pour enfant pour xale yi loolu nag ñu gis ñun lu ñu gis mu baax ñu bëgg ko indi fii ci Colobane moo tax ñu boole suñu doolee suñuy xalaat ak ñi ñu àndal ñëpp ñëw organiser fii arbre de Noël bi mu doon lu rafet loo xam ne autorité yëpp dañ ci ànd ak ñoom le sous-préfet am na fi représentant le maire son représentant inspecteur euh, bi nga xam ne moo yor case des tout-petits au niveau régional représenté fii directrice de la case des tout petits moo ngi fi woon ak l' ensemble des autorités religieuses coutumières jeunesse femmes ñëpp ñoo ngi woon fii ci euh, ndaje bi mu doon loo xam ne lu ñu rafet la kon du ñu def lu may am ci euh, satisfaction bu mag a